maye deret doon na li nga xam ne ñu bari ci askan bi xam nañu ngëneel ak njëriñ ya ca ne ñeen ñuy farataal ko ñeneen ñi ragal di ko def wala bokk mësuñu ko def Ousmane di fàttali ngëneel gi nekk ci maye deret mbir mu am solo la surtout jamono bi ñu toll nii nga xam ne jigéen ñi dinañu sonn trop si bu ñu demee hôpital man mas naa maye deret alhamdulilah maye naa deret lu man ñetti yoon ñu bëri nag actuellement ragal nañu maye deret yaakaar ne bu ñu maye deret dafay am lu muy wàññi si ñoom ndekete déedéet sëñ bi ak soxna si xam nañ bu baax ngëneel yi nekk ci maye deret ndax ñoom ñi lee bokk na ci li muccal seen bakkan nekk na loo xam ne lu am sens yàlla def nag sama groupe sanguin mu nekk ma xam nag li ci maye deret ma xam ne am na sens am na importance xaw ma ñu ma may nag mais nag su ma leen di sant di leen gërëm. mas nañ ma may deret ndax mas naa def accident. sonn na lool waaye bi ma demee hôpital bi ma njëkk a def moom mooy sampal ma butéelu deret ak butéelu ndox. Oumar ñu fekk ko ci atelier muy xam rek ni musul maye deret ndax jotam moo ko ko mayut waaye fi mu toll nii fas yéene na def li ni mel. si jaamu yàlla bokk am na solo lool yaakaar naa daal képp ku manque deret bu ñu waxee bés bi daal wax dëgg yàlla nag mosuma ko def nag mais mais moom saa ma gisee ñii di ko def moom dama koy bëgg a def mais jot gi nag ak dem foofu di rang loolu adul am mais fekkoon na bu ñu waree nii di fekk ñu suñuy place di ko fa jël waaw dina dina am solo lool bëccëgu tey nag mu doon bëccëg bu àdduna wërngël képp di màggal maayam deret donte li ñuy dégg ni suñuy banque de sang amatoon deret moo ëpp jot na nag askan wi def taxaw seetlu ngir mën a di maye deret saa yuñ ko mënee te seen wérgu yaram may leen ko ngir rek ñu mën a muccal yeneeni bakkan